démb lañ ko teg ci boppu RTS moom directeur général bu RTS euh, Pape Alé Niang naka tey ci suba ci samedi gi bi mu xëyee mi ngi woon itam ci biir RTS ngir nemmeeku kër gi nga xam ne fii la daal nag euh, démb moom Pape Alé dem nag seeti tour bi nga xam ne mooy tabax bu bees. bi ñu fi tabax tuuru fukki étage la am na itam ay béréb yoo xamee ne yu am solo la ci wàllug euh, studio mu ngi noonu ñu koy présenté gis ngeen fii ñu toog ni it ci studio bu journal télévisé dugg na si studio yi moom Pape Alé Niang dugg yit ci régie bi nga xam ni moom moo di régie technique bi waxtaan ak technicien yi diisoo ak ñoom ci naka la RTS di liggéeyee gis ngeen chantier bu bees bi nga xam ne RTS mi ngi ci foofu it di ay euh, studio yu mag foofu dem na nemmeeku ko moom Pape Alé Niang ginnaaw bi nga xamee ne mi ngi ak naataangoom yi nga xam ne ñoo di directeur yi nekk ci biir euh, RTS.